asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci Sekhawgui TV ñu dellu jaajëfal leen bu baax a baax ci topp gi ak bàyyi xel saa su nekk suñu ay programme rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a taamu seen programme bi nga xam ba tey ñu dellu jaajëfal leen bu a baax comme si ni mu ko a fës ci barab yi nga xam si ni moom Cheikh Abdou commencé na fa li nga xam si ne moo di campagne am moo di lycée Serigne Modou Moustapha Mbacké bu Taïf euh, garage taxi yi nga xam si ni moo nekk Taïf waaye itam marché Taïf itam moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly dem na fa waaye itam dem na Ndaamloo kër seeni Bara Lo euh, quartier euh, biir Taïf quartier biir Taïf moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly jaar na fa waaye itam ni jaar na Taïf quartier xur wi quartier xur yi moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly jaar na fa jaar na itam Sadio jaar na itam Daaru Minam ba bayal ba daaru minam bayal ba moom Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly jaar na fa jaar na itam jannatu waaye itam jaar na kër ñang jaar na itam gaar bu ndaw kër Serigne Abdou Dia jaar na itam kër Serigne Makhtar ñang euh, kër ñang Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly barab yi la jaar ci journée bi nga xam si ni moo di journée tey jii ci ay tournéem gannaaw bu Mbacke bi daanoo ñu ñëw ci yaatal gi

ndax njang dafa am solo ndax njang Fi ak 2060 kep ko amul xam-xam do bok ci adina lolou mo wara a ma taxaw tay ci buntu lycée bi ngir deglu seen doliance yi nga xamanteni ni moy mooy seen problème fi ngir li nga xam mom la yalla wut mom lañuy wut buñu ko yalla mayé ñu safra leen seen jafe yi incha allah day sama programme nag mi ngi jëm ci mbirum éducation programme bi sport santé économique ak culture boo jëlee éducation dama wax ni élèves yi nga xam ne dañuy Touba di ak ñeneen nga xam fu sori wut ngir ñu yóbbu élèves yi ñuy jàng te duñu fay beneen bi ma ne ku ne xam ne seen parents yi dañoo xaw a am ay jafe-jafe ci mbirum financement yi muy jox seen i doom yi dem jàngi ak seen i kii ma ne bu ma yàlla mayee ma am ndam da leen tabax bi def leen cantine scolaire nga xam da ngeen di ndékk du ngeen jënd ndékk gratuitement lay def ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly waaye itam jaajëfal bu baax a baax Mouhamadan Saliou gannaaw ba mu jógee kër euh, lycée Serigne Modou Moustapha Mbacke bu Taïf jaar na itam ci marché bu Taïf gannaaw bi mu jógee foofu itam dem na Ndaamloo bu Serigne Bara Lo quartier biir Taïf gannaaw ba fa Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly duggee itam teertu nañ ko waaye itam sa tatagal nañ ko bu baax a baax ak mbooloo mu takku lool Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly yëkkati na fa ay kaddu ñu teew lu kaddu yi Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly ba tey ci micro dan Saliou li ma fi tax a ñëw nag wax nga ko ba noppi parce que moom day seen doom amuleen ku dul moom yéen waa dëkk bi na ngeen fexe ba le 23 bii di ñëw bu ngeen demee ci élection yi ci kees gi ngeen fexe woteel sëñ Bara mii di seen doom ndax kat boo amee la gën da koy téye buñ koo jënde koo xamante ni def dara si dëkk bi fii élection gox goxaal la sa doom nag ji nga am doo ko jëndee ak doomu jàmbar joo xam xamoo fu mu doon kon sëñ Baara mooy seen doom mooy suñ daa moo ki nga xam mooy Cheikh Sylla mi nekk fële nga xamante ni mooy Bayla ñaar ñooñu mooy commune bi bu dee département bi nag man mii la di Cheikh Abdou Bara Dolly kon na xam ni wat bi ñaari wat la da ngay dugg si biir nga wote commune bi boo ñëwaatee da nga fekk benn taal boo xam juróomi xam fay nekk nga jël juróomi xob yëpp boo demee ci biir nga sànn ñeenti xob yi jël bi dugal ci biir amuloo bi muy bu weex bi ñu bind ci bokk gis-gis muy loxo yi jàppoo yi bulletin bu balaa bi am mini mu bula mii kii mooy bulletin Cheikh Bara Lo mooy bulletin Cheikh Abdou Bara Dolly ñu jaajëfal ko bu baax a baax jaajëfal Dan Sali waaye itam jaajëfal Cheikh Abdou ci euh, liggéey bu am solo boobu mu koy amal gannaaw ba mu jógee foofee tamit euh, ci euh, ndaam loo bu Serigne Baara loo quartier biir Taïf dem na itam ci Taïf quartier xur wi Cheikh Abdou Mbacké Baara Doli ba tey mbooloo mi dar ko waaye itam mbooloo ma ko fa accueillir bari lool gannaaw bu mu fa jógee gannaaw ba mu fa àggee moom Cheikh Abdou Mbacké Baara li yëkkati na fa ay kaddu ba tey li nga xam si ni moom la namm ci biir dëkk bi waaye itam li nga xam si ni moom la namm ci mbokki taalibe yi Cheikh Abdou Mbacké Baara Doli ba tey ñu teewlu ko kon ñun ñu def dara te wuñ si taif. dekk ci dekk bi nak dafa dekk bi ko gën am na ñu fi yeewoo ño xam amul ñariñ taif am na ñu fi yeewoo ño xam bu bo taif yeen wa taif na ngeen lank am seen fula am seen fayda ba nga xam ni liñ jëm ni na ngeen ko jël jox ko ñi nga xamanteni ño am yéene bo rafet bo defar département bi señ Bara Lo mi ngi ni seen mbokk la Cheikh Sylla nga nii nga xamante ni moo nekk tête liste bokk gis-gis bii nga xamante ne ku woote Cheikh Sylla mhm. woote nga Cheikh Abdou Bara Dolly mhm. woote nga maanaam sëñ Mountakha ndax liste bii may wax yéen avant ma koy tànn sëñ Mountakha moo ma si jox ndigal may xëccoo département bi nag ak juróomi candidat bi ko yore woon ci performance moo nekk avant ndaare muy Fallou Mbacké fii la dëkk waaye gis na ni Taïb def fi dara beneen bi mooy ku ñuy wax Ablaye Ñaan kenn xamu ko beneen bi mooy ki nga xamante ni maanaam mooy Matar Diop benn bokk yaakaar mhm. beneen bi mooy ki nga xamante ni tey mooy Cheikh Mbacke Bara sama mag la ñu jaajëfal ko bu baax a baax Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly gannaaw ba mu jógee ñëw na fii nga xam se ne moo di kër ñang ba tey mbooloo mi takk lool ña ko teeru takku lool waaye itam kaddu yaa nga jëm ñoom itam ñuy wax seenu naqar waaye itam bu bari bari na ak ay ñaxtu yoo xam se ni ñoo ngi koy ñaxtu seen quartier bi nga xam se ni moo di kër ñang manqué na ko Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly taxaw na déglu na leen waaye itam nee na leen incha allahu taala des na ci indi ay saafara bu baax a baax a baax moom Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly ñu teewlu ko ba tey ci micro dan saaliw merci beaucoup sama xol sedna, sama xel dalna. na ñom wa koñ bi dañu xamul ni man gaynde laa ñoom xamuñu lolu fi bu doon taw ay xeer fi lay tok parce que limo ñor moy askan wi te askan woowu nonu ci gene bok bi ngeen soxla man ngeen gisoon ma ngi seen kanam ma ngi seen ginaaw inshallah dina dinaa fas yéene ànd ak accompagner leen élection yi nak buñ ci àggee le 23 yeen waa gaar bi yëpp na ngeen genn ak ter Niang yëpp pour jàppale ñu ñu gagné pour mëna safara mbënd mi xamal ak jafe-jafe yi askan di jànkoonteel ñun paré nañu pour tout yor na suñu moye man na ko def ci taalibe ci am Bamba yi ñun manam duñu ay ngor jigen am ñoo ngor jigen aussi ñu yor béykat ngor jigen xam nañu ko. tapet yi xam nañu ko ku ñemee na nga génn ku ragal na nga toog Cheikh Abdou nga ñëw dal seen kaw parce que man maay seen baay gannaaw ba mu jógee Kër Ñang Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly caravane baa ngi wéy waaye itam moo ngi ci campagne oto yaa ngi bari lool waaye itam mbooloo mi ko dar bari lool itam fu mu mën a dem mbooloo mu takk lool ñoo ko fay teeru Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly foofu la jaar daal di dem ci gaar bu ndaw kër Serigne Abdou Dia Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly fekk fa mbooloo mu takk lool góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ku nekk toog di ko xaar waaye itam fas yéene koo teeru ba mu ñëwee itam teeru nañ ko ci teeru boo xam si ni mucc na ayib lool Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly kontaan lool waaye itam mu yëkkati fa kàddoom daal di leeral bu baax a baax li nga xam si ni moom la namm ci conseil départemental bi bu ko yàlla dénkee ko ba tey ci micro dan Saliou ma ko waxee rek wax naa ñëpp ndax mooy kër gu mag gi maa ngi leen di nuyu muy sama yaay yi sama rakk yi ak sama tante yi maa ngi leen di nuyu ak sama soxna yi soxna Aida maa ngi lay nuyu di nuyu sëriñ Abo mi nga xamante ni mooy suñu kilifa ñu ñëpp di nuyu soxna Bally mi nga xam moom nga àndal organiser lii lii nag du gan te aussi duma ma bett ci yéen ndax mbokkkat am na waaye xarit tamit am na te lii lu tax ngeen di ko def mooy dangeen a xam ne deret day sot ngeen def ko ngir jëmmi sëriñ Touba ndax tey bu ngeen demee ba nga xamante nii député bi gën a ràññee ci senegal que Serigne Abdou ko am yéen seen sag la war a doon kon képp koo xam ne bokk nga ci que Serigne Abdou te lii ñu suñ boroom def neexu la kon damay mel li li Serigne Touba dafa Serigne Abdou laa neexut ndax sëriñ Abdou Dia li ma am ba Serigne Touba da ko wax ne ko tànneef nga tànneef loolu ñu bokk si ñun ñii adduna bi yëpp di ñu di ñu tudd di ñu sagoo. Sering muntaha ni ma am nga ngërëma serigne touba lolou wa ka serigne Abdou ñoo ci wara ñëk njëkk ke serigne Abdou Dia kër gu reuy la ku ñu watal nga gañe xam nañu lolou gëm nañu ko motax ma bëgg di ñaan ci barké serigne Touba serigne mam Balla mi khalifa bi ñu maasi jog jappalé sen dom sen bop ndax aussi da du neex ci xol nga am lenn muy or ngay wuti peureum fi ku ngeen meuna a ta te ànd leen man ànd bi saful parce que ku len ci gis yedd len ndax mom ay mbokam du ñew and ak man te man sama mbok bu deme and ak mom ku ñu gis yedd da danaan ñi matuñu te aussi Adina, kenn wuri fa soxore nit ki am ndax yalla pare na. jërëjëf Cheikh Abdou mbake bara doli jaajeufali tam ki nga xamni modi Dan saliw uh, gannaaw bamu mu jugee bu ndaw keur uh, Serigne Abdou Dia moy ngi li nga xam si ne moo di Serigne Makhtar Niang bu keur Niang Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly yëkkati na fa ay kàddu waaye itam gis mbollem kilifa ya nga xam ne ñoo nekk foofee ca kër Niang kenn ku te kenn ku ci nek itam mu wax la ay soxlaam waaye itam ay bëgg-bëggam ak limu mu fi nga xam si nii moo ci Touba waaye tam limu mu ci conseil départemental bi Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly yëkkati na fa ay kàddu ñu tewlu ko batay ci micro dan saliw assalamu alaykum yeen wa keur Niang ma ngi leen di nuyu bu baax di leen sant leen gërëm di tambali sama kaddu ak sama tiant jëm ko si xalifa général murit di nuyu bu baax khalifa kër ñang muy serigne bara bi nga xamanteni barki demb rek ñew na fi don ko siaré dem ci bare bi siaré ñu fa tëdd ñaanal yalla ñaan fa yalla gañe serigne mbaktar sama xol sedd na ci mobilisation bu am solo bii nga xamantene mom nga woote bi mu dugaté ci kër gi sama yaram dafa daw mu am luma ma yëg parce que 2017 bi may falu député fi nga ma falé won ma and ak yow kon japp na ni janvier bi le 23 janvier 2022 jëlaat na président conseil départemental ba nopi kon soxna Adama soxna si soxna Fati li nga wax dégg nañ ko soxna Adama mbacké li nga wax dégg nañ ko yow suñu mbokk nga nit bu amé or te xamul lum doon da koy sànni jaawlu ko man xamna né or nga boo ñëwee dana defal ndax ku lu tak fu mu dem nit ñu xol ko dina and yow liggéey inshallah ak suñu mataar mi nga xamanteni mom mo moo ne nga nekkal ñu and pour sukkali kër ñang ak jigéen ñi li nga xamanteni mom la ci tek moy fi nga xamanteni moy kër ñang dafa am loo xam ni population bi fu nekk ku ñu woteel nga gañe man de xaw ma ko umpale kër ñang waaye si ndax xam naa li fi nekk ndax sëriñ Touba moo ko fi def ku ngeen àndal dana gañe te ànd ngeen ak man. ñu jaajeufal ko Cheikh Abdou mbake barado li ci tournée bi jaajeufal itam Dan saliw ak euh, cadreur bi ki nga xam si ak tamit Diop Modou Diop ñom ñi nga xam si ne ñoo nekkoon ci campagne bi depuis ba mu commencé ba tay ñu jaajeufal ko bu baaxa baax mom Cheikh Abdou mbake barado li ñu daal di liiraat wala itam ñu fësalaat li nga xam si ni moo di euh, Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly campagne yu tey jii moo ngi ko commencé ci lycée Serigne Modou Moustapha Mbacke bu Taïf waaye itam ba mu fa jógee dem na ci garage taxi de Taïf bi nekk euh, Taïf waaye itam euh, ñëw na ci marché bu bu Taïf ñëw na itam ci Ndaamloo kër Serigne baaraloo Lo quartier biir Taïf ñëw na itam Taïf quartier xur wi moom Cheikh Abdou Mbacke Baara Dooli gannaaw ba mu fa jógee dem na Sadio waaye itam dem na Daaru Minam Bayal ba Daaru Minam Bayal ba dem na Jannatu dem Kër Ñang yi itam moom Cheikh Abdou Mbacke Baara Dooli gannaaw ba mu fa jógee la dem Gaar bu Ndaw kër Serigne Abdou Dia gannaaw ba ci la dem kër Serigne Makhtar Ñang Kër Ñang foofu la Cheikh Abdou Mbacke tëjee ab jotaayam waaye itam ci la tëjee campagne bi nga xam si ni moo ngi ko doon amal ci journée tey jii ñu dellu a wax ci topp gi ak nekk suñu ay programme rawatina yéen ñi nga xam si ni yéen a tàmm seen fii ci Sekhawgui TV ñu jaajëfe leen bu a baax jaajëfal itam Mouhamadan ci cadreur waaye itam jaajëfal fay ci technique bi jaajëfal muuru itam mook Mouhamadan ñoom ñi nga xam se ni ñoo toppoon campagne bi présentation bi Mame Mbaye Ndiaye ñu jaajëfaleen bu baax a baax di leen jox rendez-vous demee incha allah jaa ngeen jëf